bismillahi irrahmani irrahim wa sallallahu wa sallam ala sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa asxaabihi wa xulafaihi wa man wala jaalana allahu minhum sëriñ bi ñu ngi leen di sëriñ bi dafa sëriñ bi dafa wax ni ñu sàkkul ko ndigal ci yow ci lii muy bëgg a jëf nee na bu ci amee ndigal mën koo tàmbali nee na am nga ci ndigal bu baax alhamdulilah alhamdulilah kàddu gu gàtt incha allah. na sarak nee na kàddu gu gàtt incha ndax fa ñu ko taataane la ak fi mu jëm si. nee li waral muy gàtt mooy kàddu gi fa mu tukkee ak fii mu jëm moo waral mënula gudd. ci tële ak lottaange ci ni ñu ko taataane woon ci. mbokkam soppeem xaritam léppam di mu ni yëg ak lot ci man ko toxal na mu waree jële ko ci sa mbokk sa soppe Seydi Aboubacar Mouhamadul Mansour indi ko ci yow ñu laltaaye ko ubbee ko turu yàlla subhaanahu wa taala sant yàlla bu baax a baax nee na xanaa ñu laytaaye ko muy wax ji mooy ubbee wax ji turu yàlla subhanahu wa teg ci sant ko di def salaatu ak taslim ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa na di julli di sëlmal ci sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallama di ñaan itam suñu borom subhanahu wa taala ci darajay ndawam soppeem boobu di yonent bi sallallahu alayhi yàlla nañu yàlla fayal suñu maam ju di maam Cheikhul Khadim ñaan yàlla subhaanahu wa taala ci darajey sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam soppeem boobu yàlla ñu yàlla wuutu fayal ñu suñu maam ju baax ji maam Cheikh Ahmed Bamba radiallahu an sëriñ bi sa mbokk sa soppe mi ngi sa mbokk sa soppe mi ngi lay di Seydi Aboubacar Mouhamadul Mansour nee na mi ngi lay nuyu di la ziyaara amoon loolu yéene ak mbégte ñëw teewal boppam ci jëmmi boppam waaye ngant téye ko nee na amoon yéene lii ñu ko defal wutu ko ci mu defal ko boppam waaye yàlla dogal ngànt gaar ko ñëw ci sa wet toog bokk ak yow lépp ak fépp nee ñëw ci sa yow ci sa wet toog bokk ak yow fépp ak lépp ndax lii kat xew-xew la boo xamante ni mbindaafoon yëpp a ko moom. ndax lii xew-xew la boo xam ni ku yàlla bind am nga ca cër. rawatina jullit ñi. rawatina nag jullit ñi. waaye ci biir jullit ñi nag rawatina moom ci jëmmi boppam ak njaboot gi yëpp. biir jullit ñi nag rawatina moom ci boppam ak njaboot gi yëpp. ndax lu leen yàlla boole la. ndax day loo xam ni yàllaa leen ko boole yéen ñaar fa tabaarakallaahu mu ni fa tabaarakallaahu kàddoom yooyu nag mu wuutu ci mbooleem sa xadra maam Cheikhul Haaji Malick nee na kàddoom yooyu nag mu ko wuutul di ko ko jotalal ma nga ca wuutu moom it mbooleem xadra sa maam Mawlana Cheikh El Hadj Malick radiallahu an waaye gunge ko ñaan gàttandoo ko ñaan ak cant ak ngërëm jëm ci sa taxawaay ci sa wàll nee waaye gunge ko ñaan gàttandoo ko ñaan mu jëm ci sa taxawaay ak ngërëm bu jëm ci sa taxawaay bu rafet ci diggante bi. ci lépp loo xamante ni itteel na diine ji. ci taxawaay boo xamante ni bii ñëpp xam nañu lépp lu itteel diine ji rek sa sa loxo nga ca biir. itteel réew mi. itteel askan wi. itteel askan wi. ak jaami yàlla yi. ak jaami yàlla yi. ci lu leen dimbali. ci lépp lu leen di dimbali. lu leen di taxawu. ci lu leen di taxawu. luy rafetal. ci luy rafetal. luy boole. luy boole. luy yéwénal. yooyu la yëpp yaa ngi ci suba ak ngoon. nee na yooyu la yëpp gis nañu ni yaa ngi ci suba yaa ngi ci ngoon. moom daal nee na moom daal li mu ñu yónni ñaan la ñu ànd ak ñoom moom it ñu di di la ñaanal nag wëlbati ko di la ñaanal ñun ñëpp. gannaaw gudd fan teg ci wér teg ci kaaraange gu jógee ci suñu boroom yàlla na la yàlla may ngërëmal maam Cheikhul Xadim. yàlla na la yàlla jox ngërëmal maam Cheikhul Xadim radiyallahu an te ngërëm moom mooy ngërëmal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi lu mu gërëm yàlla gërëm na ko. te moom moom ngërëmul maam Cheikhul Xadim mooy ngërëmal sayiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu mu gërëm yàlla gërëm loola. sëñ Babacar nee na mi ngi feddliwaat mbokk gi ak kóllëre yi ak cofeel yi ak yëg-yëg yi. nee na tànk yi tànk yi feddali kóllëre gi ak bokk gi ak teraanga ji ak yëg-yëg yi yëpp ñu ngi koy feddali ci tànk yi. ba ci yoonu mujj wii rek nga yebaloon sëriñ Mouhamadul Bachir njaboot gu teraanga yi nga xamante ni indi ko teg ko ci loxo mu ko def ko ci liggéeyu jumaa yoonu mujj yi rek nga xam ni barki démb sa jawrin di suñu bàyyi Seyd Mouhamadul euh, Bachir. bu maam Abdul Qadir ñëw ànd ak délégation bu rëy ba ñu àndal indi teraanga ju rëy ja nga xamante ni bii moom nga leen jox ñu yëkkati ko teg ko ci loxol góor ngi ci kilifa ga ngir mu jëm ci liggéeyu jumaa jooje nga xam ni moom la moom lay taxawul foofa. ak leneen lu xew rek ak lépp lu xew. nag gis nañ ñi sa loxo noonu la ci demee. muy na muy liggéey boo xam ni nag. ñu mel ne man ñu bari dinañ ci. dinañ ci rectifier nee na muy liggéey ak jëfin woo xamante ni bii ñu baree baree baree baree bari dinañ ci dinañ dinañ ci seetaat seen bopp. dina dina tamit am soññ ci ñun. dina nekk it ab soññ ci ñi ci ñun. ci takku taxawu. ci takku taxawu nag. ci diine ji. ci diine gi. ci réew mi. ci réew mi. ak lépp loo xamante ni rek dinañ ci. njariñ dina ak lépp loo xamante ni bi mën naa jur njariñ tey ak ëllëg yàlla nee na mi ngi ci teg nag di la ñaanal yàlla bu baax a baax mashruwaat yi nga sumb yëpp mboole yi ak projet yi nga xam ni yëpp yaa ngi ko sémb muy ay sémb yu fi ne yàlla na lépp sotteeg jàmm na nga sottal ak jàmm alaa wajhi alxayaati mu ànd ak wér ak jàmm ak fekke ak fekke tal ak tal ak sago nag ak kaaraange ak kaaraange xam naa ni lott nañu ci la ñu taataanoon ci moom mënuñu ko jotal lépp nee na kàddu ya ñu jële woon ci moom ci ni mu ko waxe woon ci njaalbeen néew na doole lott na ci man koo jotal na nga xamante ni bi noonu la ko war a jotale waaw ñu ak njaboot nee na looloo taxoon nag mu boole ñu ak njaboot ñii mu àndal di sa njaboot nag di sëriñ Mouhamadul Habib di doomam. di sëriñ Mouhamadul Habib si di doomam. di sa doom di sa doom. ak sëriñ Sidi Ahmed si di doomam di sa doom. ak sëriñ Sidi Ahmed si bu sëriñ Abdoul Aziz si al Amin di doomam di sa doom. ak sëriñ Pape Youssoufa Diop mii nga xam ni. mu ne wala ak sëriñ Pape Youssoufa Diop mii nga xam ni. bàjjan Asietu si bu sa maam Cheikh Al Hadj Malick. nee na bàjjan Asietu si bu Mawlana Cheikh Al Hadj Malick. mi maam Youssoupha Diop dëkkoo woon ca Fass. mi maam Youssoupha Diop dëkkoo woon ca Fass Jaksaaw. ñoo meññ way juram. ñoo meññ way juram. di alxaaji Mouhamadul Moustapha Diop. di alxaaji Mouhamadul Moustapha Diop. fa tabaarakallaahu fa tabaarakallaahu. ànd ak Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Gueye. ànd ak Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Gueye. waaye ànd ak tamit ay doomam di say doom. waaye ànd ak it ay doomam di sa doom ñu bokk ci délégation bi. di njabootam di sa njaboot. di njabootamit di sa njaboot. di alxaaji Abdoul Aziz. di Ndiaye. bu alxaaji mu ànd ak rakkam alxaaji Baye Ndiaye. fa tabaarakallaahu. fa tabaarakallaahu. ñi bëggoon a ñëw ñëpp bari nañu. nee na ñi bëggoon a ñëw ñëpp bari nañu. waaye ñun ñi ñoo fi jiitoon di. wuutoon di leen. nañu bu ñu agsee tamit nañu aw ci alxaaji sëwru kebe bu ñu agsee it fii ci dëkk bi ñu àgg ñu jaar ci alxaaji sëwru kebe mi fi nekkal xadra mi nga xamante ni bi moo nekkal waa xadra maam Cheikh alxaaji Malick fii ci dëkk bi waaye di sa njabootu bopp di sa njabootu bopp it nag Ngasama ca Daaru mi nga xam ni mooy imaamu Ngasama Daaru Rahman. ak Alxaaji Omar Kebe mu ànd ak it Alxaaji Omar doomam. ñu ngi ànd ak tamit ñu ne ñu ngi ànd ak it suñu rakk Babacar Diagne. ñëw nuy si la. ñëw nuy si la. ziyaar si la. ziyaare si la. ndokkeel si la. ndokkeel si la. masawu la. masawu la. yeesal cant. ak ngërëm. yeesal ngërëm. lépp bàyyi ko ci. ci ci kaddu sa mbokk sa soppe di lépp bàgg bàyyi ko ci kaddu sa mbokk sa soppe Seydi Aboubacar Mouhamadul Mansour. ñu ngi jégalu bu baax Serigne bi. kaddu yii Serigne bi ñu ngi koy jégalu ñu ngi jégalu guddaay wi. ñu ngi jégalu bu baax. ñu ngi jégalu bu baax ak jataay beeg yëpp ñu ngi koy jégalu. papa Abdoul Aziz am na teraanga yu mu indaale. nee na papa Abdoul Aziz mii Abdoul Aziz Ndiaye mii am na teraanga yu mu indaale. ci ay gàtt. yu jëm ca ay gàtt. fukki gàtt la. fu nee na fukki eh, nag la fukki nag la. ak fukki tonu ceeb. ak tonu ceeb. ak dëwlin. ak dëwlin. ak ya ca ànd yëpp. ak ya ca ànd yëpp. fa tabaarakallaahu fa tabaarakallaahu. nee na jot nee na nee na jotaay bii rek doyoon na ci tey. jërëjëf ñu lay jotal tamit bi dafa wax ne jërëjëf rek xolam sori na lool. ci ci kaddu mu ne ci kaddu yi nga xam ne sëriñ Sidi Ahmed yëkkati na ko. mu ne sori na ci moom lool mu ne dégg na ko itam benn par benn mu ne xolam sedd na ci guy yi mu ne xelam dal na ci rëteex mu ne yaakaaram it dolleeku na ci eh, suñu soññ suñu bopp mu ne suñu soñ suñu bopp it dolleeku na ci bu baax a baax mu ne mi ngi sant di gërëm bu baax bi ci ndaw yu baax yi eh, mu ne ci jataay bii nga xam ne sëriñ Aba Aboubacar sëriñ Mbay yebal di jëmmam. mu ne loolu gis na ko bu baax a baax. mu ne yëg na ko it bu baax a baax. Eh, mu ne mënta. ci cant ci jëf ju rëy ji jëf ju baax ji. mën noo xam mën na mu amul mu mun mun nu ko mën noo xam nu koy nu koy tënkee wala nu koy waxee ci xeeti cant cant yu rëy yu sóot ci ñun yu mm-hmm. xam ne wóor nañ ne am na dolliku nañ ci mm-hmm. li ñuy jëriñ teegal rek xam ne na jotaay bii dolliku nañ ci ndollan lu rëy ci ñun alhamdulilah yëg ko mm-hmm. xam ne dañ leen def def mm-hmm. a. ndeysaan tax diire waaw ndeysaan alhamdulilah alhamdulilah. alhamdulilah. mu ne xolam sedd na guy waaye xel mi dal na bu baax a baax. mu ne yaakaar mi dolleeku na bu baax a baax a baax macha allah. kaddu yi fa tabaarakallaahu rëy na lool mu ne kaddu kaddu yi fa tabaarakallaahu na lool. sell na lool mu ne sell na neex na lool mu ne neex na sëkk. fa tabaarakallah nee na mi ngi sant bu baax a baax. ni mu demee ci ñun bu fekkoon ne moom mu ne jëmmi sëriñ Sidi Ahmed mii ni mu demee ci sëriñ bi bu moom fekkoon jëmmam ji képp moo ñëw képp moom doy na sëkk waaw waaye taxawaayam dafa sori ci moom lool mu ne rawatina bi mu àndee ay bokkam yu baax yi mu ne jóge fa ñu bàyyi ko ji sëñ Aboubacar ba ñëw ba ci jataay bii mu ne loolu rëy na ci moom lool mu ne sedd na xolam jërë ngeen jëf mu ne xamul lu mu a wax rek ndax li ci waaw mu ne léppam cant la alhamdulilah jërëjëf. mi ngi seedeel sëriñ bi tamit suñu mbégte. Eh, ngi seedeel sëriñ bi nag mbégteem. ak suñuy cant. ak cantam. ci suñu rakk ji. ne ci seen rakk ji toog di Serigne Chouaïbou sama ak mbooleem njaboot gi nekk. di ko dollee sàkkul ñaan. di ko dollee sàkkul ñaan. nga ñaanalal ñu ko yàlla bu baax. nga ñaanalal ñu ko yàlla bu baax a baax. ñun ñëpp a nag ñu ngi ci biir ñaan googu yi. waaw fa tabaarakallah ko dénk bu bi ne ko moom ngi leen koy gën a dénk bu baax a baax. jërëjëf Mbacke tabaarakallah jërëjëf teewlu. Ah, waaw waaw seeral gën na ko seeral bu baax. ah ok gën na ko santal bu baax. jërëjëf incha allah jërëjëf incha allah. nga xam ne wala li nu séq. moo mm-hmm. euh, ngi seeral suñu borom na. Mm-hmm. Euh, daan ko ko sàmmal. alhamdulilah alhamdulilah sàmmal ko xadara ba yëpp. xadara ba yëpp jërëjëf jërëjëf. li fi noo ngi noy incha allah. wallaahi lool càmbte googu yi dañ ko bu ñuy dem dañ ko yóbbaale. alhamdulilah jërëjëf ñun ñii ñun ñii toog ci jotaay dem yenn saa yi ñu feeñalal sa cofeel gu mu am ci yow dina ci tudd ñaari yëf ñaar rek bu jëkk bi mooy woyof gi mu yëg ci yow ci boo toogee ci sa biir njaboot njaboot lañu nee na Aziz ak ak Baye mii rakkam njaboot lañu ay ndaw lañu te ay ndaw la it nag. waaye ndaw yu tënku ndaw loo xamante ni bii ñu tënku ci kilifteef lañ topp ci seen i kilifa. yuy xeeñtu jub ak jubal. tey nag ay ndaw yuy xeeñtu jub la ak jubal. dara itteelu leen lu dul rek jëf lu baax. dara itteelu leen lu dul jëf lu baax. delloowaat ko ci jaamu yàlla yi delloowaat ko ci jaamu yàlla yi. kon sëriñ baa ngi la koy sàkkul ñaan te di la ko dénk. loolee li koy firndeel. Mhm. bi mu fi ñëwee bërki démb rek. waaw indi teraangam juree ji. waaw moo tax sëriñ bi tamit xam loolee nga wax nii ci moom. waaw moo waral mu jox ko siyaada. Ah. ak kaamil alxuraan. ak kurus ah alhamdulilah. la a am solo ko waxee dañ ko ah. wax nekk moom ba mu ñëwee rek loolu la ko wax ne ci yokk yëpp taxawaay ba nga xam ne def nga ko foofu ci Tiwaawoon mu ne loolu doyoon na sëkk waaw lépp lu mu ci yokk rek indoo leen la waaw moom ci Abdou Aziz Ndiaye waaw jërëjëf macha allah